ñu la Omar li nga hmm. indee ci amatina solo ñu jëli pajum cosaan alaaji kàddu gàngoog jërëjëf ajaratu Betimbo mi doxantoo deux millions amiin di am mbégte ak kontante di ñëw ak yéen ci seen rubrique bu mag bi nga xam ni moom la ñuy wax pajum cosaan ñu ciy ànd ak seex Bara Ndiaye borom def gis macha allah ci taxawaay bi ci wàllu actualité ak ci wàllu wi nga xamante ni bii mooy wàllu pajum cosaan tey sax day dóor dóoraat parce que ginnaaw bu paree ci émission bi émission bay am ca guddi ga di diineeg jamono war na ñëw yëkkati ay kàddu jëmale ci sëñ bu mag bi ci wàccaay màggal gi Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyu aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala fala taxlamu nafsun maa uxfiya lahum min xurati ahyunin jasaan bi maa kaanu yamaluun maa ngi lay fay alay gisaan joogu di nuy ñu ñu bokkal plateau bi ñëpp di nuyu képp ku ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu bu baax sëriñ Muntaxa xalifa général de Mouride di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke di nuyu soxna May bintu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke di nuyu sëriñ Abib Diop di nuyu sëriñ Xaadim Diop di nuyu sëriñ Amadou Haysa Mbacke ak sëriñ Abdou Samad sëriñ Jiili sëriñ Abdou Latif ak mboolem njabootuk sëriñ bi yëpp di nuyu sëriñ Abdou Khadir Ndiaye di xalifa sëñ Darou asan di jaale euh, njabootuk sëñ Massamba Oumy Ndiaye gépp parce que sama. xalifa sama rakku papa di sëriñ Ahmadou Bamba Ndiaye xalifa sëñ Masamba ummi moo euh, génn àdduna keroog altine la faatu ñu yóbbu ko ca Taïf ca wetu sëriñ Mbàkke soxna loo jàmbaaram euh, sëriñam di ko jaal waa Daaru Ndiaye gépp di ko ñaanal yàlla mu yokk ay leeram di nuyu di ñaanal tamit sama mag sama xalifa bu bees muy sëriñ Baara Ndiaye nga xam ne mooy sama mag léegi moo fa nekk li suñu xalifa mu sëñ daam xari ñu ngi koy jaal te di ko ñaan yàlla yan bi mu yanu xilaaf ak yàlla wayafal ko di ko jaale sëriñ maxtaar sëriñ basiiru sëriñ muntaxa soxna cekk ak mbooleem njabootu sëñ masamba ummi gépp Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah tey bi may ñëw am na ñu bari ñoo xam ni fàttali nañ ma ne mbirum jigéen ña Cheikh baara tey moom fexe leen koo yaatal nee naa leen amul benn problème hmm. parce que point boobu dafa nekk point bu am solo hmm. yitteel lool jigéen ñi hmm. xam naa ni loolu moom la ñuy tëjee def ko mu nekk dernier point mais bii yoon danañ ko yaatal Cheikh baara dañuy démarrer yow ci li nga xam ni mooy actualité ginnaaw bi nga xamante ni bi dëkk bi Ousmane Sonko génn na waaye mel na ni tamit répondeur automatique yi nee nañ bërit ñoom daal di génn. Mhm. gis nañ ki nga xam ne mooy ab laay saw mhm. na lay. Mhm. génn di tontu ak tamit ki nga xam ni mooy Farba Ngom. ba tuddee fi sax aji aji saar nee na dana ko yóbbu màkk ne ajaa aji saar. loolu nag nekk coow loo xamante ni bii nee na kur noo gis jàngatee sorti Ousmane Sonko tontu yi nga xamante ni bii répondeur automatique yi nga xamante ni bii ñoom nee nañ lay rek tàmbalee tontu Farba Ngom ak ki nga xam ni mooy Ablaye Sow. waaw foofu. Euh, li may njëkk a wax mooy. Mm-hmm. wolof Njaay day wax ne coow li ci biir tool bi. coow li ci biir tool bi dugub ji waaye dàq na picc yi. saxarul dugub ji waaye dàq na picc yi. waaw maanaam coow li ci biir tool yi. waaw taxut dugub ji màgg. waaye nag dina tax picc yi duñ fi ñëw. picc yi duñ te Ousmane Sonko ko gis euh, sorteem bii jàll. waaw Euh, ni mu waxee force bi mu waxee. Mm-hmm. ak détermination bi mu wane. Mm-hmm. ak euh, jéego yi nga xam ne am na diggante bi élection yi jàllee jëm ci yeewi askan wi ak wallu ak yi dox. Mm-hmm. maanaam li ngay dinga wax. li ngay wax nag doonte xam nga ne. waaw li ko tax a jóg doo ko ci am. waaye amaana da nga am loo ci amee. loolu tax wolof naan. coow li ci biir tool bi. waaw màggalut màggalut màggalut euh, ñaax mi màggalut dugub ji moom. looloo tax far ba xam na ne li muy wax. Mhm. nit ñi gëmuñu ko jàppuñu ko. Ah. waaye nag da koy wax pour defal boppam. nga koy wax mhm. pour wane ne existence am mi ngi fi. defal loolu moo tax wax jooju am na njariñ mhm. léegi li am solo mooy lu mat a jàngat mooy lu tax Farba. waaw ak Ablaye saw waaw APR ñëpp ne fa Aly Ngouille ne fa ñu gis Mimi Touré ak ñëpp ne fa ba ak Ablaye saw rek. lëkkaloo def seen conférence de presse. Ah. di tontu Ousmane Sonko lan moo leen war a liyee. loolu mu foofu la sew sew bi nekk. foofu la bi damay wax ne Ablaye Sow mooy ministre bi yor wàllu suuf si. waaw Farba Ngom lañ wax ne mooy dagg suuf si di jaay. Hmm. te discours Sonko ba nag. waaw non seulement ñoom bi ñëwee dañoo wax ci candidature sonk waaye loolu taxu leen a jóg. Hmm. suuf si sonk wax ne da koy réglé. waaw ku kuñ ci jox danaa ko nangu. waaw dinaa rëq seen ndigg. dafa mel ne dañ doon génn pour. Hmm. wan ñiñ joxoon suuf si ne leen kat. waaw am nañ garantie yu leer waa ji yorut benn affaire du dara moom sax du nekk candidat jërul ngeen tiit hmm, bu leen ci desee woon weccat fay leen ku doon waaj a dagg nga dagg maanaam man noonu laa ko gis ku desee woon weccat fay ku a mot ku doon waaj a dagg dagg ku doon waaj a mot li nga mot li ku bëgg a dagg hmm. daggal ndax waa ji du nekk candidat mbirum aji saar rek balaa koo jéggi nangam ak nangam hmm. maanaam dañ doon defal seen bopp di defal seen i client looloo tax ñoom ñaar ah man ne loolu laa mën a yaakaar ne ñoom ñaar looloo tax ñu dajaloo di wax waaw waaw loolu raison la loolu moom man noonu am na client yoo xam ni musuma leen gis ñuy wax waaw am na client yoo xam ne mënoon nañoo rocceeku hmm. wax ji waaw bu dee lañ fa wax nag daa hmm. ñàkk solo lool moom ba ba jërut taxaw di wax liñ wax waaw alda mooy mbirum aji saar ak yooyu aji saar moom hmm. jàpp naa ne bu fekkonte ne am na lu ñuy wax euh, maanaam bu passé wala boog passe tourné maay loo liir ba tur def ko nii nga xam ne moom mi jàll na passe bu ñu loolu lay nurool te boo seetloo ñi ci doon ŋaat ŋaat yi di wax ñëpp daanaka rëggal nañ ah te bu fekkente ne euh, ay wax rek moo ci moo ci des. Mm-hmm. lu maam góor ga saaka jël ba toog. waaw Gaston Mbengue jël ba toog. Mm-hmm. dégg nga ma ñoom François ak ñoom Mati Trois Pommes ak ñëpp jël ba toog El Hadj mi nga xam ne yaakaar naa réew mi moo fi gën a bari wax moo fi dàq wax. Mm-hmm. dàq fee coow. moo jël a coow coow mel ne coow li moom day day day day day fay mbir mi. ba mu far toog. jàpp naa ne far ba. dañ koo dugal ci guerre bu mu dul am ndam. Ah. waaw ndax moom jàpp naa ne El Hadj Diouf ko dàq a wax. gën koo mën a wax gën koo xam li muy wax. Mhm. te taxut mu am ci ndam. kon bu fekkee dañ ko ne demal nga waxi. yaakaar naa guerre bu mu doon am ndam la. Mhm. mbirum mbirum aji saarit waaw maanaam dafa nekkatul débat. nekkul débat waaw dafa nekkatul débat vraiment. ah kooku moom jàpp naa ne ma xam jàllo sax. waaw mi nga xam ne moo yor dossier bi. waaw defe naa ne euh, crédibilité am wala crédibilité Macky Sall sax mëneetul ñu naan dañuy woo Sonko dañuy leeral ak lii moo ci dugg ak lii moo ci dugg parce que mm-hmm. dossier bi mm-hmm. sénégalais yi dañ cee jox def seen bopp intérêt ah. man dañ cee jox seen bopp yitte di ko diglu mm-hmm. ku ñu woo ñu diglu la lu ci information ñu génn ko teg ko ci taabal ji fii ne nii maanaam li ci nekk dëgg ak li ci nekk fen ñëpp xam nañ ko waaw avocat bi wax na siis ba wax ñëpp wax nañ li ci des nag mooy nekk fii di ci waxaat di indi di ñàkk di di indi ñàkk stabilité ci senegal mm. maanaam da koo jëru jaru ko te itam day ñàkkal fayda nit waxoon campagne ba ba mu ciy wax laa ko ne Mimi jigéen nga nekk fii di wax wax yooyu daf lay ñàkkal fayda mm-hmm. ay sitoor nduur yi sax nit ñi am fayda waaw daanaka doo leen gis ñu ci jéem a wax man de mm-hmm. wax dëgg yàlla rus na maa toog mm-hmm. di wax naan sitoor nduur nangam ak nangam li ma man mooy ñaanal ko yàlla bu fekkente ne dañ koo tooñ yàlla na ko yàlla dimbali lu ci nekk man daal ñaanal ko yàlla laa ci man waaye nekkut loo yooyu lu ñuy exploité di ci politique dégg nga waaw lu ñuy exploité di ci politique loolu moom mooy li ku mel ne Abdou Karim Sall. waaw nga xam ne bu dul woon politique da wax ne ab imaam la. maam loolu la ko ni ko yàlla bindee quoi boo ko xoolee rek respect ngay bindu imaam bindu imaam la am te da ngay xam ne da koy xool rek xam ne am na xëy bay diine mooy kuy góorgóorlu ci diine wala ku mel ne Ablaye Sow moomu toogaloon ak Farba nga xam ne maanaam da nga koy ñi ko da nga koy rus da koy rus boo doon saaga sax doo ko saaga wala boo doon saaga boo déggee doo ko dootoo ko nii maanaam boo doon wax waxi wax wax wax ju caaxaan sax boo mhm. seenoon Ablaye Sow boo mut doo ko yeggale ñooñu yàlla dafa am ñoo xam ne yàlla yàlla da a bind jox leen li ñuy wax xorma xorma mhm, mhm. mooy li ñuy wax magnétisme wala charisme dañ koy am nga xam ne nit ñi bëgguñu laa gis ngay wax wax ju tegginuwul waaw Abdoulaye Sow nag bu mm-hmm. fekkente ne dañ koo jël na ko demal ànd ak Farba ngeen dem di wax ci affaire yu affaire ay yaa bi yoolee ak yaa def laa waaw loolu Abdoulaye Sow dama koy wax ngir yàlla ca mm-hmm. Abdoulaye Wade la la politique ba ci mm-hmm. Macky Sall kenn mosu koo gis muy wax lu ñaaw bu mu dugg ci yooyu d'accord ah, ah, ah, kii nu mu tuddati Abdou Karim Sall fu ma ko séenee muy wax ci Adji Sarr man man ci sama bopp. Mhm. man damay rus. da parce que xam naa ne li muy wax. Mhm. bu doon moom ak moom rek maanaam wax ji jëm ci wàllu sexe ak lii kat foofu ci moom daal. Mhm. am na ñeneen ñoo xam ne nag fii ne farba. loolu muy wax moom loolu moom jig na ko. jig na farba ndax fii ne bett julli. waaw baa nga seen farba ca Kaaba ga. waaw baa nga seen farba jumaay Touba wala ca jumaay Tiwaawan ji wala nga seen kenn ko baax kuñ ne ma ngay dem ca farba bala farba ngay dem ci ñu baax ñi daanaka loolu day mel jubut day mel ni dafa seen farba muy def lu baax day mel ni daa dafa jàpput lu baax jàpput farba daal <laughs> soo bëggee dégg eh farba kaaba ga du jeex seetlu ko rek maanaam bett farba muy julli nii wala nga séen ko ñu naan ku baax a jëm ci moom wala moo jëm ci ku baax wala ñu naan tey farba daa am doom tudde ko yeneen tubeek maanaam xeet yooyu doo ko gis ak farba wala nga séen ko <laughs> maanaam seen farba mu yorub kaamil ak yooyu maanaam lu baax jàpput farba moom loolu jig na ko mën naa wax lu ko neex loolu loolu moom jig na ko daal nit ku nekk daa am ne la xola xola li ci baraada bi bu dee dëgg rek li ci kaas yi bu dee dëgg rek li ci baraada bi dëgg eh, eh, gis nga ah. gis nga li ci baraada bi boo xoolee ci kaas yi rek xam ko dafa am nit ñoo xam ne boo leen mhm. séenée rek lu ñu ne la ñoo ko def sax garawut quoi ah. baal nga ko ndax da ngay xam ne jekk na ci moom farba yooyu muy wax noonu ay aji saar mm. na ci moom ah. parce que ku nekk cim réew ñu baax kenn jubluwu la maanaam ñi baax jubluwul la ci jubluwoo ñi baax booy def lu baaxut loolu yaa ko te far ba ñu baax ñi jubluwuñ ko ñu baaxut jubluwuñ ko <laughs> ñun benn problème lañ am mais nag maa ngi wax benn affaire Ousmane Sonko tamit lu wax ji ñàkk-ñàkk fayda waaw na ko bàyyi xel parce que far ba mooy Macky Macky farba farba nu mu nekkee Macky waaw ah. gis nga fii ne loolu farba wax ca euh, élection yi daal na gars yi dañoo boyeewut la mayoo dañoo def nii maanaam ni mu jàngate perte perte APR waaw bi Macky Sall ñëwee noonu la jàngate perte APR hmm. teg teg da xam ne kon Macky daa déglu ba toppandoo ba ah. wala nu waxtaan ci ah. fu kenn newul kon dangay xam ne li bay wax makee koy wax ah. i maanaam ba keroog sorteem boobu yéenay Macky Sall ak xolu Macky Sall la ba doon yekk noonu hmm. waaye nag ndaw yéene ju dul dem fenn hmm. waaw yéene ndaw yéene ju mënut a sotti ay affaire aji saar moom baye boo bu hmm. fekkee dañoo am leneen li boo ñu créé waat beneen dossier wala leneen waaye lii moom maanaam ku bëgg a ñàkk da sax toog ci di wax dégg nga waaw te yàlla day ah. nattu nit gis nga boo demoon tey ku mel ne euh, Poutine waaw euh, Alexandre Doguet mi nga xam ne maanaam dañ ne Poutine. Hmm. yàlla da koo nattu ci Alexandre. waaw daanaka dañ naan mooy ñii dañ koy woy naan ko bopp Poutine wala xelum Poutine. xelum Poutine nga xam ne. Hmm. tey jii dafa jaaxal adduna bi. Hmm. ci côté mondialisation ak nouvel ordre mondial ni mu koy jàppee di ko toj. nga xam ne menace la sax xam-xamam menace la sax ci Amérique. fan yii bi ñu xamee ne pour nga pour nga sonal. Euh, Poutine dañoo dem ci oto euh, Alexandre Doguet def fa ab bomb. ba doomam ju jigéen. ñëw dugg ci oto ba far yàlla dogal moom mu duggul ci oto bi doomam ju jigéen ñëw dugg ca mhm. far gaañu mhm. da ngay li ma bëgg a wax mooy àdduna bi li muy rëy rëy ngand moo fi dégg buñ ne laa boo ko xoolee dañ la boroom xam-xam sàngam waaw mi ngi ci wetu Macron boroom xam sàngam mhm. mi ngi ci wetu roi Maroc boroom xam-xam sàngam mi ngi ci wetu Poutine noonu laa demee Macky Sall nag benn boroom xam-xam ci réew mi kuñ na la maanaam du tàqali ko Macky Sall doo ko gis farba daal la ko yàlla natoo farba ñuy ñuy ñuy waxee détail moo tax réew bi ci détail dong la taxaw waaw moom mooy mooy Alexandre Doogeetum Farba mooy mooy Alexandre Macky Sall Farba waaw fii na nii maanaam lu wax jooju li muy ñàkk ñàkk solo nii. waaw loolu moo moom moom mooy mooy Macky Sall quoi parce que li li nekk ci Farba. Mhm. maanaam Farba génn di wax rek. day wane ne lu sori la ci Macky Sall. Hmm. waaw te Macky mer na. te mere na Sonko. waaye nag mbir fa yàlla. d'accord jërëjëf Cheikh Bara macha allah li nga wax noonu euh, boobu ba tey maa ngi imaginer Farba euh, ca Kaaba ga waaye dafa mel ni ni ma koy imaginer euh, dikkul voilà Cheikh Bara dañu ñëw ci beneen point <laughs> Farba ay ba Farba Farba bu ma doon boobu ren damay aji dafa il faut ma aji parce que photo wu la ko yow bu ko defee nga gis ko ma la xoolal ndax jekk na wala jekkul Cheikh saaku soble cinquante mille ca Touba. Hmm. ñu jëm màggal boo deful ndànk màggal gi fi mu toll ni soble bi euh, mën na indi ay gàllankoor ci lu mel ni soos ak lu ni mel euh, noo jàngatee dund gi cher gi nga xamante ni bi cher na ko ndax mësoon nga imaginer ñu naan la saaku soble cinquante mille ñu ne ñu ngi koy jaayee ci dëkk bi waaw dund gi de waaw jékki-jékki tàmbali di seer hmm. te loolu nag tàmbaliwul ci at mii hmm. maanaam waaye at mee ñu génn sax la tàmbali woon ci at ma la ñu génn mais ñu génn hmm. euh, li ma mën a jàpp nag mooy dafa mel ne euh, seer gi muy seer nag maanaam dafay bëgg a toll ci jéggi dayo jéggi dayo waaw jéggi na dayo jéggi dayo la def maanaam mooy boo xoolee li nit dul soxla moo njëkk a seer li saakub ciment saaku ciment pont ciment fer béton pont pont yokk na lépp lépp lépp lépp loo xam ne dafa jëm ci lu ñuy tabax waaw ni muy seere dafa jéggi dayoo ciment hmm. fi mu ne nii daanaka mi ngi jëm ci soixante quinze mille francs soixante te gis naa isinu isinu ciment terre yi nekk Sénégal di wane ne ñoom dañuy yokk xam nga hmm. ciment ak carburant dafa waroon a yokk avant élection yi hmm. état bi téye ko pour bañoon mu def mu def mu répercuté wu ci résultat élection yi bi élection yi jàllee rek boo xoolee nguur réew mi dafa mel ne dañoo bàyyeeku day benn caayee ñor ju dagg day jékki-jékki ne pour maanaam lépp lépp a jékki-jékki roog yëngoondoo caaye jàng ca suuf voilà mhm. léegi nag mhm. euh, boo ko seetloo dëgg-dëgg maanaam carburant bi mhm. ciment bi mais ciment ñoom buñ ko yokkaatee dañuy def problème parce que ciment fii ñun boo ko mi ngi mel ne boo gisee orange di ah. réussir lu baree bari ci ay prime nga xam ne mooy day am bénéfice bu bari dafa fexe ba sénégalais bu am cent franc mu mën a jëflanteeg yow à partir de cent franc mu tàmbalee jëflanteeg yow waaw ciment nag ñoom dañoo dem ba soixante quinze mille ñu taxaw fa hmm. ñii am soixante quinze mille da ngay nawetub nawet ba mu yegg nga war ci nga mën ee tabax bennum nekk tabax ko waaw bu buñ yokkaatee maanaam nit ñi buñ wàññe woon ba ciment di jar trente cinq mille hmm. dinañ am chiffre d'affaires bu baax parce que nit ñëpp ay tabax di tabax di tabax di tabax di tabax mais su fekk li fekkee ñu ngi yokk rek nit ñi duñ tabaxati da la fekk saa bu ñu dee yokk rek dañuy gën a wàññeeku loolu ñoom nañ ko bàyyi xel hmm. ñoom seen chiffre nekkul ci di yokk askan wi tabax di gën a wàññeeku parce que hmm. fii ñi tabax mënuñu waaw dégg nga dañuy def dañuy am dal cib kuu dem jënd mool mool ko dalaat cib kuu ñëw hmm. taqale ko dalaat cib ñëw kuule ko noonu lañ koy def ba mu yegg mais mënuñu ko kon donc boo koy yokkaat da ngay wàññi taux bi tabax loolu ñoom lañ ko bàyyi xel mais bu paasee loolu léegi ñu njëkk-njëkk gis nag dund gi tàmbalee ko ci poobar jëm ci jumboo dem ci almet dem ci meew dem ci diwlin dem ci ceeb dem ci suukar waaw dem ci euh, lépp lu nit di soxla wopp nga xam ne quotidiennement nit bu yeewoo da koy bëgg rek maanaam dafa jekki jékki so hmm. nit ñi di ko sooxaale di ko sooxaale di ko sooxaale ñu jékki rek maanaam soble moom soble jóge fi mu nekk dem prix bu seer te li ko li ko feeñal mooy hmm. dafa demoon Touba keroog màggalu tu màggalu daaru xuddos gi jàll muy jeudi na tey da ngay dem ba yor cinquante mille bëgg saako soble da ngay dem di xeex pour am mbëkkante pour mm. man koo am. Mm. xeex boobu nag la nit ñi filma dugal ko ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. nit ñi doo ko bàyyi xel soble si. d'accord benn waay man ca lu jiitu lu jiitu alxames ji ñu naan cinquante mille lay jar Touba benn waay dafa ne ma sëñ Baara lu garaaw am na. Mm-hmm. sama xarit la buy mool ca Touba. mooleur la. Mm-hmm. dafa ne ma mën a ko lu mu doon mu ne ma man deux mille cinq cent laay laay laay laay ko waaw mu ne ma deux mille cinq cent yooyu mënatuma cee bëjëg maanaam léegi dañ ci daan dañ ci daan añ ba mu yegg mu ne ah mu ne ma léegi bëjëg ko boo ci bëjëgee mu jeex. <laughs> waaye waaye déedéet sa laay mënta bëgëj. waaw bëjëg. <laughs> léegi mu ma boo ci bëjëgee mu jeex. <laughs> te boo xoolee effectivement kilo soble bu dee day dem deux mille francs léegi looy bëjëgee. boo jëlee ah, gën waa gi war a soble. nga dëgg jël jël kaaneeg yooyu booy bëjëg rek ma am. waay waay ma daan nga xam ci daan añ ba géex. léegi bu ma ci bëjëgee mu jeex. ndeysaan bëgg léegi nan la ñuy waaw waaw waaw bëgg moom boo mënatu la am ci ceeb bu weex moom. wax na dëgg grève la wax na mhm. dëgg parce que mhm. soble mhm. nit mu munu dafa bari dafa bari ay ay ay ay yu muy waaw muy def dafa bari maanaam boo bëgg loo bëgg a togg rek loo bëgg a togg rek da ngay da da ngay laal soble euh, soxla soble waaw boo xëyee nit ñi li ñuy am yokkuwul wallaay ba pare mu seer nga dolli ci coono yi lu luyaas dolli ci coono yoo xamante ne te lii lépp malgré mi ngi am mais dafa nekkul lu taxaw maanaam day continuer di dem day continuer di boo xoolee jamono yëlee def naa benn émission ma ne sama benn xarit buy politique bu bokk ci APR. ci tabaski gi dafa dem ci benn boutique ci Touba jënd soble. waaw waxaale ba juboon ñu ne ko soble si saa par exemple pour mille lay jar. waaw mu ne temps la ci xaalis ñu ne waaw mu ne bu ma ñëwee bu subaa ma fay parce que daf koy jënd chaque année di ko séddale. bi mu ñëwaatee di fay si. ñu ne ko saako bu nekk. Mm-hmm. maanaam yokkaat na 5000 francs hmm? waaw. saako bu nekk ab 5000 francs teguwaat na ci. dooleeku na ci nga xam ne. ni mu ko négocier mooy dafa mujj bàyyi lu mat 40 ndax dafa mujj wàññi taux bi mu naroon a jël nga xam ne néew ju doole ju bari tey duñ jot ca sobles wala mu daan joxe parce que mënatu koo fay mhm. loolu mooy problème bi te nag malgré tout affaire bi taxawut te itam état bi ko war a régler moom asom jaataa ko def moo ca nekk mooy ministre de commerce. dund gaa ngi yokk waxut kenn dàqu ko kenn tegu ko sanction mel ne loolu moom moom lañ ko sant. te itam li ñu naqari mooy saa bu bëggee tontu Sonko dina génn tontu Sonko ba mu saf sap. waaye bu prix bi seer kenn du ko gis. wala bu ñu génnee li ñuy wax ay fausse information la. Hmm? Touba problème ba réglé nañ ko dara lañ réglé wut. ba léegi hmm. Touba soble sax kenn mënu koo gis. ba kenn ba léegi kenn mënu koo laal. te neewoon nañ oto yaa ngay looloo wër Dakar nga xam ne woo du yaakaar naa 1000. nangam lay jar. soble waaw parce que kilo parce que parce que saako bi day egg quarante mille francs. allah kon loolu bu waxee taxawee naan rek la nañ ko loolu du dëgg. Hmm. dégg nga te nag léegi Sénégal. waaw bu fekkente ne dund gi moom day continuer di dem man dama doon am lu ma bëggoon mooy état bi. waaw euh, parce que tamit lii dafa mel ne kiris la boo xamante ne mën naa am. yow ni nga koy yàkkamtee pour ñu régler ko du noonu du yomba régler noonu. Hmm. en tout cas yombut. te itam fii ba deux mil vingt quatre moom jàpp naa ne crise ci wàllu dundin moom dina am. Hmm. mooy infla xaw ma inflation lañ koy wax. inflammation inflammation de prix. inflation de prix. inflation day am c'est bon allez yeggale. Euh, tey moom Cheikh Bara yaa gañ man. yeggale yeggale rapidement. dégg nga yeggaliwul léegi nag hmm. man dama doon xalaat. gis nga état bi. bu fekkente ne doomu aadama yi léegi. li ñuy am dafa tuuti. ba noppi ñu bëggee dund prix yi di seer. Hmm, ah euh, prix yi di seer. léegi dama doon xalaat. état bi dafa waroon a am yu bari yoo xamante ne. ci loxol état la nekk mu fexe ba nit ñi léegi. Mhm. li ñuy am. Mhm. maanaam mu nekk loo xam ne day dem directement ci seen i soxla. Mhm. ñu ciy fay luyaas di ci lekk. waaw léegi bu fekkonte ne état bi tey jël na école publique. mu defaraat ko. école publique. waaw pour lan defaraat ko ba nga xamante ne. moo gën école privée yi wala ñoo yem maqaama. waaw nga xam ne yow saa doo am problème mu jël sa ñaari doom. waaw. di leen yóbbu école privée di ci ñàkk soixante dix mille francs loolu dëgg la waaw gis nga soixante dix mille yooyu bis mm. bu ñu ko état bi teggi woon ba nga xam ne léegi dematul ci benn ci yow la jëm si bu ñu yokkee tamit du garaaw ah. mais dafa am yoo xam ne état bee ko war a def ba noppi defu ko jël ko politiser ko mm-hmm. ñi ci bàyyi ko mu nekk noonu ba nga xamante ne tey mm-hmm. damay wax ne Macky Sall bu juddu woon ci jamono jii mm-hmm. du tekki du du tekki lu tax nga wax loolu jamono jii ñu toll ku juddu xam nga moom papaam amul woon nekkul woon borom doole joo xam ne day mën a dem di fay école privée yu mag yi. Mhm. li mu mënoon li mu defoon mooy jël ko yóbbu ko école publique école publique formé ko ba mu nekk président. Mhm. tey jii kan kan mooy jël kan la ñuy jël di ko yóbbu di ko yóbbu école publique. Mhm. bàyyi ko fa muy mujj nekk président. du yomb de. comprendre nga loolu laa bëgg a wax. Hmm. mooy dañoo war a jël école publique moderniser ko defar ko. moderniser ba nga xamante ne day am garantie bu wér nga xam ne nit ñi léegi dootuñu jël seen soixante dix mille di ko def ci seen ñaari doom yu jàngi. soixante dix mille yi bu ñëwee day dugg ci loyaas bi dugg ci dund gi. waaw boo fi soxlaa wenn këyit. Mm-hmm. sama benn xarit moom ma koy wax barki démb ne ma sox boo soxlaaw këyit dëkk Casamance. Mm-hmm. nga ne cas yi judiciaire laa soxla. waaw trente mille francs. Cheikh Bara jigéen ñi. waaw trente mille francs di nga ko ñàkk kon nañ mm. tëje foofu trente mille francs di nga ko ñàkk pour mën a am casier mm. judiciaire waaw mooy da nga dawee fii ba Casamance mm. ñàkk fa ab ab temps passe ñàkk fa ñàkk sax ñaari fan yoo xam ne doo ko liggéey doo ko am casier judiciaire mm-hmm. soo soxla woon euh, benn extrait bu ndaw boo matul fii ba seelam yi ngay jëm doo di ko doo ko wuti mm-hmm. boo amoon soxla ci tribunal yeeg maire yi dañuy jël sa bala nga soxla passeport rek dinañ la jëlal temps boo xam ne maanaam Sénégal dund gi moo seer Mm-hmm. lépp loo xam ne dafa nekk ci loxol état dañoo war a fexe ba nit ki di ci jot facilement nga xam ne du ko dukkee dërëm d'accord léegi li muy am ci ci so salaire am mm-hmm. dugg ci biir ci biir dund gi suñ ko defee rek dund gi dana dana oyof te ñaan yàlla mu defal ñu xéewal ba mm-hmm. lu mu seer seer ñu di ko dund ñu koy def te may kattan état bi tamit ba mën a teg mbir yi normal parce que tamit metti na nga ah, yor ab ab état dundu gi di yokk te mënoo ci dara ah, loolu metti na nit ñi tamit metti na nga xëy loo jub ñu ne la seer na kon yàlla ñu yàlla boole dimbali ñun ñëpp amiin amiin jaay rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara dañuy dem ci point ñu bari ñu ngi koy xaar jigéen ñi góor ñi muy point bi nga xamante ni bii keroog lañ ko fi jël mm-hmm. nga expliqué ne jigéen ñi nga xam ni ña ngay safal lu ñu jot jënd naan lii mën nañ ko cee rokkas lii mën nañ ko ci lii lii boo ko ci timmasee day gën a saf lii day gën a lii ak day gën a lii day gën a le Cheikh Baara yooyu nag commencé na indi ay jafe-jafe ci dëkk bi mm-hmm. parce que timbax timbax yooyu ñuy rimbax ci biir yooyu noo jàngatee mbir yooyu nga xamante ne bi safal yi ñuy jaay ci marché yeeg lépp di ko ci mbax rambax rambaxee noo jàngatee lool Cheikh Baara macha Allah waaw léegi nag loolu dafa bokk ci li nga xam ne man li ma ci côté bi mm-hmm. ma ci bëgg ñëwee mooy caada ji nga xam ne moo nekk ci Sénégal mm-hmm. ci diggante jigéen ñi ak wàllum cuuraay ak lu jëm yooyu waaw parce que gis naa sax Poutine ci fan yee ci feet kuñ doon def Vladimir Poutine mu ne day cuuraay am réew noonu mm. dafa wax ne rek am ah, réew bu ñu koy wax mooy mën a sàmm intérêt réew ma mhm. ak sàmm caada mooy cosaan ak aada yi nekkoon ci réew mi mhm. ak fexe ba benn force du toog fële di manipuler réew mi mhm. bi mu ko waxee rek dama ne kon de xanaa Sénégal bu moytul dum réew moom ah. ndax ñun sàmm ñu suñuy intérêt suñ caada ak suñ cosaan dañoo am complexe pour def ko seen nga ci rajo beeg télé bi ku kuy xas sëñ baara sa ko yow nitu garab nga ak i reen mhm. te sa fekk sa maam ak sa maamaat yëpp ay niti garab la ñoo reen kon dèjà mhm. complexe gi mhm. dafa xóot ñi ëpp ñi naan ñi ñiy dee complexé wu sax ñoom ay complexe lañ naan sëñ baara garabu garab la donc mel na ñun kon ñi ñi pharmacie pharmacie wu ñoom ñoo gën garabu garab yi waaw voilà loolu ñun complexe lañ ba nga xam ne suñ caada ak suñ cosaan sànni nañ lépp même ci garab même ci solka même ci lépp dañoo am benn kirisu complexe bu nekk suñ bopp yi te boo xoolee tamit manipuler bi France nga toog fële ak ak ay occidentaux yi du ñu kon ñun du ñum réew. Mm-hmm. loolu laa ci bëgg a wax mm-hmm. xoolee nag réew mi diggante jigéen ak cuuraay. cuuraay defar ko foroxal ko def ko ci kaa pot def ci mm-hmm. gonge gowe <laughs> yooyu ah. dafa amoon. li ko defoon nag ci li ma jàpp mooy bu njëkk ba ñun ci ñax lañ daan dëkk mooy néegum ñax. waaw lalu pajaas. waaw bu dee taw day def li ñuy wax sëcc. Mm. boo amee boroom kër mu ñëw. war a ñëw ci néeg bi. Mhm. day fekk néeg bi sëcc. mën naa andi du sawar ci sab néeg. Mhm. su ko defee ñu jël gowe jël cuuraay. Mhm. jël yeneen ak yeneen foroxal ko tëj ko ba nga xam ne day xeeñ su sëñ bi waree ñëw ci néeg bi balaa ñëw ginnaaw timis buñ dekkalee reer bi nga jël ci xal ya mhm. dem ci néeg bi taal ko mu sël sël sël sël sël ba néeg ba ba ba dàq xet xet gu sëcc gi waaw pour bu sëñ bi ñëwee rek bu duggee rek xet gu neex gi daf koy accueillir waaw loolu la ci jigéen ñi jublu woon mhm. bi ci des it mooy jigéen dafa xaw a sëcc mooy day gis tax parce que dafay gis reegal mhm. te reegal dafa mën a indi ay xet mën a indi ay ay effet yoo xam ne day des dañ daan jël euh, aldanki aldank jël euh, euh, kii nu mu Hmm, ke ke ke eh, kepp cepp cepp jël li ñuy wax dégijee mooy gewee gu amul euh, ci euh, parfum bi hmm. dafa boo xam ne parfum la judduwaale am boo xam ne amu ko mooy lañuy ñuy wax dégijee nga jël ko hmm. boole ko ci benn biteel di ko naan normalement jigéen bu gisee règle juróomi fan yu ci topp daf ko war di naan day tax doo am insomma estomac doo am infection di dindi ay ay ay ay ay ay ay ay nu tuddati ay fibrom ak ay kisk ak yooyu yëpp daf koy def ba noppi dafay raxas sa kanam te day tax booy sëy da ngay gaaw a tooy ah, léegi nag loolu lu baa mbaaxum réew mi la woon mbaaxum réew mi ak mm-hmm, woddoo ab sër gis nga bari na yu jigéen di def yoo xam ne du affaireu <laughs> sàppali du affaireu sax jël ay sàppaleeg yooyu di ko def sa kanam mais mm-hmm, ni ngay dundee mm-hmm. dafa mën a indi ay ay jafe-jafe ci sa yaram benn mooy jigéen ju dëkk ci sol tubay sol tubay sol tubay sol tubay surtout que suñ côté yi nga xam ne dafa tàng yooyu man am nañ jàpp naa ne am na ay jeexital yu mën a jur ci yow bi ci des mooy di sol li ñuy wooyee nañ ñu baal baat bi rek. pour nga xam dafa am déggul olof muy silip <laughs> silip euh, koy sol. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne ay njiit laa yeeg yooyu yëpp xamuñu ko ñoom. da ngay wax rek ñu doog koo xam. ma nga France ma nga Belgique di la déglu mm-hmm. xamul sax li ngay wax. na leer boo jëlee silip sol ko. fóot ko mm-hmm. jël ko weer ko ci biir salle de ci kenn. soxlawaat ko solaat ko. waaw futtiwaat. fóotaat ko loolu baaxul day adem ba am ay microbe yu dund ci sëlib bi mm-hmm. boo fóotee il faut nga yóbbu ko ci jant bi mm-hmm. naaj wi dóor ko pour mm-hmm. microbe yi mën a dee d'accord mais nga def noonu boo ko defee lu yàgg di sol sëlib bi day mën a dem ba am yeneen yu juddu ci biir tubay jooju indi problème ci sa kanam bi ci des mooy jël ay saabu mm. saabu euh, nu ñu koy wax saabu olof yi ñu bari dañ ko naan saabu olof yi dafa baax mais dafa am xeme xeme boobu nga koy raxase sa kanam mën na ci indi odeur mën naa tax booy sëy tamit doo tooy. Ah, baaxul léegi tamit problème bi ci des ah, nag. mooy ñi nga xam ne ñu bari ñoo koy def. Mm-hmm. mooy di jéem a naan da ngay li sàppali mooy jël ay cristal jël ay lu mel ni nangam nangam jaxase ko. Mm-hmm. diw ci sa kanam. waaw muy saf mant. waaw nga ci sëyeeg sa borom kër. gis nga mm-hmm. góor sax avant tout góor lépp lu bari mant. waaw baaxul day néewal doole góor. kooku moom dafa leer. léegi nag ñoom dañ koy def. dèjà problème bi fi mu njëkk a nekk mooy. man jigéen ñi ma ciy waxal dama leen ne. le fait que nga nangu ne safoo. waaw ba sa morom ñëw di la sàppali rek foofu nga problème bi nekk. waaw problème la parce que tey ceeb bu xasee ba saf. waaw boo ko sàppalee yàq nga ko. Mhm. lu saf suukar. waaw boo ko safee sàppalee yàq ko. lu mhm. saf xorom boo ko sàppalee yàq ko. Mhm. su fekkee saf nga ngay ah. jéem a sàppali yaa ngi koy yàq waaw dëgg la kon bul jéem a sàppali waaw bi ci des it mhm. mooy loo xam ne la ca safakus néew safaloo ko waaw ku ne la kaay ma sàppalil ko bu ko sàppali <laughs> dëgg la loo ca la ca safakas néew maanaam daa am lu ci safit sew safaloo damay gis bitéelub gaz bu jeexee waaw fa ko sarse woon nga koy yóbbuwaat ne ko sarse laat ma sama gaz bi waaye bu sa bitéelub nga dem ci tëyër naan ko sarse ko du ko sarse mhm. dëgg la léegi nag kon ki naan la indi ma sàppalil la sa kanam ba ba mu gën a saf da koy laaj ba xam ndax yaa ko safaloon waaw dégg nga <laughs> dëgg la safalu ko de ko woon waaw macha allah te daa bari yoo xam ne leer na waaw bari yoo xam ne suñ borom da koo def ci nit mhm. te lu mel ni paxi nopp yi tey boo ci woon wut ay man-man yoo ciy jéem rek boo moytu léegi nga tàmbali mu ngis muy génneem ndox baa muy xeeñ waaw paxi bakkan yi boo ci doon jéem man-man naan da ngay wut parfum boo ciy def ak da nga koy jéem a fomp ak da koy mm. jéem a tëj ak mm. rek léegi nga gis mu am man-man dafa am yoo xam ne yàlla mi ko sàkk nga koy bàyyee mm-hmm. li ci des nag ak silwis mu rek lay doon mm-hmm. mi ngi ne soccu mm-hmm. mi ngi mel ne dem ci toilette bi laabu raxasu mi ngi mel ne dem saw lislaam da lay wax siiwal silwis mu rek nga koy nga koy mottalee jigéen dafay am li ñuy wax silwis mu parce que gis reegal dafa doy waar dafa bari yu muy bàyyi bu ko defee ngay raxas sa kanam ba mu set jël li ñuy wax euh, dànki ak euh, cepp ak ay euh, ak ay euh, gowe gi nga xam ne amul amul amul amul parfum di ko def mm. xambu saa yoo gisee régal ba noppi naan ko lu mat juróomi fan mm-hmm. tey soccu mm-hmm. te bu fekkee jigéen joo xam ne amagul borom kërit mm-hmm. naan ay lépp luy lépp gis nga lépp luy tee nit di def nu ñu koy waxeeti euh, planning mën naa indi jafe-jafe yu mel nii parce que planning mooy jigéen dangaa judd ba am vingt ans di gis régal jékki-jékki def planning léegi gisatoo régal li daa génn te génnatut wax nga mu ne waaw bi ci des mooy. Mhm. di def naan doomi lépp luy doomi doomi pilule de lendemain nga xam ne mhm. danga koy naan mu lay mu lay planning nga xam ne mhm. day tax doo ëmb. mën na laa tee ëmb. waaye hmm. day tax booy sëy dootoo gaaw a tooy te ñu koy def hmm. ñëpp buñ ko seetloo day am fajum wolof mii am na ci hmm. loo xam ne boo ko day jëfandikoo tant que bëggoo am doom doo ko am voilà dafay planning am na ci loolu dañ koy gëstu ngeen di ko def waaw moo gën ngeen di ngeen di jël yooyu bi des mooy sëy préservatif bu pari dérmit day tax ngay am xet ci wàllu gis nga loolu dafay indi jafe-jafe gis nga jigéen am na xet ci kanamam dong wala mu ñàkk a tooyati jëkkëram day diis ci moom mu taxaw naan ko léegi neexatoo ma waaw dafay wër wër loo naan ko damaa feebar danaa fi ñëw suba nangam bu ko defee nga topp sëriñ si di fay naan waa ji kay léegi mënatuma koo gis mhm. moom kay léegi moom bu ñëwee sax baanaka benn yoon sax nangootu ko weesoog man waaw waaw fekk na waaw dafa am mhm. tuuti mhm. jafe-jafe lu nekk ci sa kanam moo tax jigéen nay seetlu boppam waaw tey waxtaan ak moroomi jigéenam yi te mooy tandiku daal lu waay for waaw andi ko naan la defal ci sa kanam nga masha allah masha allah jigéen daal na silwiise rek waaw ta ta tey itam lu bëree bari li téye góor nag ci jikko lay delloo mm-hmm. waaw jigéen ñu bari dañuy ñàkk kilifa waaw bëgguñu seen jëkkër nekk seen kilifa dañuy mm-hmm. lànk boo leen digalee ñu lànk boole ko naqari direct ba noppi bëgg nag nga nekk seenum xar loolu yombut damay wax ne jigéen mm-hmm. ko dama ne damay wax ne man tekki mu ngi tàmbalee ci sa sa yaay ragal sa baay képp koo gis sa yaay nangoo sa kilifteef ak sa baay mhm. ci sa kilifteef ak sa baay lay tekkiloo képp ku nar a tekki rek sa baay daa ragal sa yaay sa yaay daa ragal sa baay ku nar a torox waaw fekk sa baay ragal sa yaay mhm. loolu mooy affaire bi benn ndaw sa dafa yekk añ dafa yekk mbaxal mi mhm. indi ko teg ko mbaxal mi tàng jër di saxaar ñu ne nii ñu ne eh, mbaxal mi dafa tàng de mu daw wuti ak ak wantaay Mm-hmm. bi mu ñëwee tàmbalee fekk dafa mer. Mm-hmm. fas kanam gi nag ma nga fas kanam nga ni kucci mm-hmm. dem jëli wantaay gi ñëw rek ne nii commencé ëpp mbaxal mi jëkkër ji ne ko déet njëkk la ëpp sa kanam gi ba noppi. waaw kanam gaa gën a tàng. <laughs> ne ko sa kanam gu tàng gi. <laughs> moom ngay njëkk a ëpp doog a ëpp mbaxal mi. macha allah noonu la demee kon nag yooyu ma wax nii yëpp daal ay tegtal la. yoo xam ne da ngeen ciy bàyyi xel. te yooyu ngeen xewil ko daal gis naa ne xewal ngeen ko waaye yooyu xewil leen ko yu soof la. ay sàpp leeg yooyu na solo parce que point yi dafa am point yoo xamante ne point yu am solo la muy point yooyu il faut nga ñëwaat parce que pour jàngale waaw temps bi jeex na d'accord teeyal yow tàng nga xool di uppal sa kanam gi Cheikh Bara léegi euh, <laughs> léegi Cheikh Bara joxe programme bi wax ñu tàgg tàgg tàggatu parce que temps bi lekk nañ ci sax ay ki waaw programme bi li may njëkk a wax tey mooy na ngeen ñu topp ci diine ak jamono. Hmm. Euh, dañuy waxtaane si. na Oustaz Assane Faye Moustapha tey jii. Hmm. nga xam ne Walfadjri moom tàmbali na safar ji tey hmm. incha allah euh, waxtaane si Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa yàlla dogal na nag ma bokk ci invité yi maa ngi ñaan ñëpp ñu ñëw seetaan si euh, di wax ne suba ci àjjuma ji ñu ngi nekk Tëngéej cité sëñ Mansour ci terminus su 48 bi boo fa taxawee rek nga laaj kër sëñ Baara Ndiaye. Mm-hmm. wala nga ñëw boor euh, boo ñëwee ci Aïdane bi rek station Aïdane bi nga laaj beddu mi sëñ Baara Ndiaye dëkk rek dinañ la ko won mm-hmm. lu tàmbalee ci siti mooy ndoxum cité. xasen mm-hmm. ba yuy xasen yooyu yëpp. hémorroïde mooy ñuy seere am ballottement biir buy def ngelaw ndigg luy metti. wala ndeer di géex bopp buy metti. kanam nguy dellu. ñàkk bëgg jigéen booy sëy di gaaw a pare yooyu yëpp. Mm. ak di dem toilette air rek. Mm. di wala doo xiif yooyu yëpp rek hémorroïde interne. Mm. ak siti ak estomac ak ngóora. Mm-hmm. ak asma ak tension jabet yooyu yëpp ak prostate. Mm-hmm. boo ñëwee incha allah foofu ci ci tëngéej danañ la ko fajal. Mm-hmm. Euh, bu fekkente ne samedi la ak dimanche di ajjuma ji rek la ñu nekk tëngee ci samedi ak dimanche ñi nga asalem de ginnaaw école Madiaye Sall mm-hmm. lundi mooy journée bi nga xam ne mbirum rab lañ ciy traité mooy dañuy ñëw ci bis bi ñu dugal la ca barab bi ñuy sangate ca rabe seetal la fajal la mm-hmm. rab yi même bu dee daa am nga am jëkkër bu la tee am doom bu fekkee dafa nekk dafa téye sa mu noo wax mm-hmm. bu booy gént di sëy booy gént mm-hmm. boo amul bayre loo am mu yàqu ko lu mu mën a doon rek boo ñëwee ci bis bi danañ ko faj d'accord bu dee mardi mercredi tamit ñi ngi ak jeudi ñi ngi asalem 2 ginnaaw école ma jege sall léegi nag mbooleem yi ñuy faj fii tamit am na Touba ca ca Gédé wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir boo fa demee di ko fekk sama rakk waaw koy wax Jili Njaay boo demee incha allahu mboolem émorite siti tension diabète ngóora mhm. surtout garabu ngóora ku ko soxla boo demee incha allah da nga ko fa fekk incha allah même ni nga koy fekkee Touba tamit boo mhm. demee Thiès euh, non Mbour da ko fa fekk ca Osan mbuur ba boo fa taxawee fi mu jàkkaar lool mhm. boo fa demee wala nga woote rek ci numéro boobu ñuy affiché mu nekk numéro mbuur bi boo fa demee moom itam nii ñu koy traité fii ci Dakar danañ ko traité foofa ca mbuur kon da ngeen ñi féete foofu mën nañ ñooy am foofu su ko defee daal lool noonu la demee. Cheikh Bara temps bi jot na tey lekk nga 4 minutes. Cheikh Bara temps bi sa romb 4 minutes. Mm. deel rek la temps bi yow it. Mm. parce que yow dafa mel na ngay xaabaabal. Mm. numéro téléphone bi du di 77 610 81 81 77 610 81 81 ba alxamis ak jàmm ci kàttanu borom bi ñu dellusiwaat ci mbirum jigéen ñeek saf-safal yooyu parce que vraiment na saf. aywa uppal sa kanam. jaajëfal nañu leen bu baax a baax moom Cheikh Bara Ndiaye borom def gis nga nuyu ma ak sëñ Sidi mu ndaw waaye man personnellement maa ngi nuyu Kati Bara Kati baara maa ngi lay nuyu bu baax a baax di kontaan ci yow te naan la jërëjëf yal na yàlla fay la Kati jërëjëf kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax ay ayca ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ñu dem ànd ak Baye Mbaye ñu ngi koy nuyu ak ñi nga àndal ñëpp ñu daal di ah, dem ànd ak partenaires yi dellusiwaat